dikkati na dëgg-dëgg ganaar masta bàyyi kii bojj topp ki góobi woon tribune yéene kaay ne président Macky Sall day bu amee nu mu doxalin faaw ñu wax ko ndax nag bu ronxee ñenn ñi jàpp ni ñàkkub compétence moo ko waral tey gis ne ma ngi leen di roofaat ndànk ndànk coow daal di judd réew mi yéene kaay bi dee média bi ne ma moom président Macky Sall ay ministre ak i directeur généraux yoo xam ne daf leen génni woon beddi leen moom la jàppaat di leen recycler yéene bi ne ma éternel recommencement de la Sénégal nekkee saa si tembe ay ministre yoo xam na leen moom Sall ngaari la Matam woo leen nag ci catastrophe mardi taali moom président Macky Sall nag bëgg a joyanti réewum Sénégal bato boo xam ni capitaine ya ca nekkoon baaxuñu mënuñu muy suux moom président Macky Sall dàqi capitaine yooye bato ba di gën di suux moom président Macky Sall woowaat capitaine yooyee ngir joyanti bato bi mbaa bato bi moom du gën suux tribune ne ma ñamu dàqoon jaaral leen ci bunt ba ñëpp gis seenu dàq yootal na leen ndànk dugal ci fenêtre indiwaat ci biir gouvernement gi moom Macky Sall doxalin gi ña fi nekkoon ñoo fi nekk ngeen xamee ko noonu amul genn ak coppite goo xam ni président Macky Sall def na ko ci boppum réewum Sénégal ci ni ñu jiit yéene kaay xëy sampub laaj mbaadu Racine Talla nag dafa nar a jógee RTS en kër gu mag moom ma nga ca of nag yéene kaay bi ne ma waa APR daal di wàccu ba maar de taali Amadou Ba le thème mooy yéene kaay ne président Macky Sall waa APR ñoo dee ci xol bi société nationale yi nga xam ni fan yëpp mi ngi ciy tabb moom Sall ngaari waa APR la ciy ñetti ay PCA wala mu leen di def ay directeur laaj ba mooy mbaadu président Macky sàll moom ñetteel bi mandat lay waajal le mandat yéen a kaay ne en tout cas xelan cay teey de ku yóbbul nag bàyyi xel waajtaayu président Macky sàll mii ndax Mame Mbaye Niang Cheikh Kanté Abdoulaye Seydou Sow ak ñeneen ci parti bi ña ngay sàkk moom président Macky sàll mu wutaat beneen mandat bu juróomi at mar day taali le ko le quotidien ma en tout cas président Macky Sall day ma ngay freiné na ñenn ñi wotoog fonction dee su ko jëndati ci réew gi ci boppam day daal di loué waaye cabinet bu président yi day daal di vox populi ne gannaaw logement yi moom nguur gi day ma nga daal di ciblé administratif yi Dakar Times mel ni ku naan maan moo yey de ndax nag crise énergie am na ci Europe waaye tam crise bu ñam bu ñu dundee am na fii ci Afrique njëkk yi daal di yokk ci àdduna wërngal këpp président Macky Sall laaj ba Dakar Times samp ci moom mooy nan lay def nag ngir mën a yore réewum Sénégal wii mu jaar yoon Le Soleil yéen a kaay ne loo ci mënti dégg téeméer boo jël fii ci réewum Sénégal ci suuf yoo xam ne dañ leen di bay fanweer ak ñeent ya na xorom yenn yi mbënd mi da koy laal yenn yi nag suuf si si boppam meññeef gu leen dundal la ñu daal di manqué direct news ne ma boobu réew mi nekk ci guuta goo xam ni mar day taali ay société minière yu nekk ci diwaanu diiwaanu gu fàtte ndaw ya ndaw ya mer ba futu génn ci mbedd yi di xeex ak ñoom wane seenu naqar ci taali pëna ak yeneen le mandat yéen kaay daal di may xamal ne moom Aminata Touré day nekkoon fi premier ministre nekkoon fi président bu conseil économique social et environnemental luñ ko mën a waxalit moom Aminata Touré xeer la goo xam ne mi ngi jëm ci biir maraakiisu président Macky Sall l'observateur daal di may xamal ne assemblée nationale day daañu tàmbaliti seen session unique waaye itam ubbi seen année parlementaire lu gën a metti nag daal di nay door ci réewum Sénégal l'observateur moo ma ko xamal ndax dossier yu tàng jër dinaa nag caxat-caxatee assemblée nationale le mandat ne bu leen fàtte ni Mimi Touré day mën national président Macky Sall bés bi le jour na ci ndorteeru session ordinaire bi dana nekk ab session boo xam ne du ordinaire ndax kaa Mimi Touré di national assemblée nationale ay ay blocage yu budget yi buñ moytuwul am ci assemblée nationale Omar Youm daal di xamle ni responsabilité opposition bi daal la ñuy xaar fas yéene nag surveiller Mimi Touré Aminata Touré war a dem ci assemblée nationale tey ne waa Benno Bokk Yaakaar sama ngañ ci ñoom faalewu ma leen Malick Kébé ne budget boo xam ne daal dañ koo def ci yaama neex duñu ko wote tey na leer l'évidence yéene kaay ne ma la ko neex te gën ci waa Géejawaay la El Hadji Ahmed Aïdara def ci ubbi teg l'école gii moom municipalité bu Géejawaay jaaree ko ci maire ba daal dina ni jébbal ab loo matériel scolaire bu am solo CM ak lycée bu nekk ci Géejawaay jot nga sax wàll muy ndimbal goo Elhadji Ahmed Aïdara jagleel na ko waajuru ndongo yi foofee ca Géejawaay ci jamono joo xam ni réewum Sénégal ñu ngi dund jaxannam ak ouverture yoo xam ni métti na lool Sud Quotidien sampub laaj daal di xam le nag budget bu Sénégal boo xam ni atu yàlla sàkk day daal di yokku fan la xaalis boobee di jaar yéene kaay bi ne tey ñu def mise à niveau ndax Mor Gassama ci boppam daal nay xam le nii ab budget nag ngir mu daal di jëriñ askan wi ñu koy yëg dëggantaan li ci ëpp ci investissement lañ koy def duñ ko def ci fonctionnement mais sa baabu ne li tax feeñul fenn moom moo di budget bi ci boppam daal di xaaj benn bi ñu daal di ko yóbbu ci salaire bi beneen bi ci fonctionnement état askan wi nuñ koy yëgee yéene kaay bi ne ma desal ak man ndax Air Sénégal moom gëm naa ne kenn mën sa teree mu nërmeelu l'évidence yéene kaay dëgg nag ndax ñun mën nañ yor ab compagnie ndax crise ba ca Air Sénégal day dafa waajul sax ngir daal di jeex boobu wal fu ko di jeex daal di sampub laaj mel ni nag kuy wër ay nit laaj nag ña nga xam ne ñoo doon faral président Macky Sall ak di ko rayal teeñ ku wax ci président Macky Sall ñu dal sa kaw anañu mu di yu Cissé Lo ngoom Ngom ak Benoît Sambou laaj sampu na ci fu ñu nekk de ko di jeene booba day gauche ba mu ngi ci danger gu mar day taali parti socialiste xiiroo ak ŋaayoo fas ko yéene yóbbu ardo ña nga xam ni seenu nguur ba mu jeexee tax ma PS AFP LD AJ ak PIT nekk ci guuta parti socialiste ak AFP ba mu xëccoo ndono moo leen nar a yóbbu barzak le témoin yéene kaay di dikkaat ci woolu gi ñu waroon woolu Ousmane Sonko ni ki démb daal di koy déglu yéene kaay bi waat ne loolee lu naroon am la lan moo tax nag doyen des juges deltu ci ginnaaw laaj ba samp na waaye laataa altine gi ñu jëm moom Ousmane Sonko day waroon nañ ko déglu te ci alxamis gii la waroon nekk le témoin yéen kaay daal di may xamal ne xibaar bi maa ko njëkk annoncé te la am te des moom moo di dafa mel ni avocat Ousmane sonk nag ñu ngi bëgg am dëgg ci doyen des juges ndax xamaloon nañ ko ne laataa ngaa déglu Ousmane Sonko mënta ñàkk nga déglu ñaar ñii Sidi Ahmed mbay waaye tam déglu capitaine Touré booba lii ko quotidien daal di may xamal ne ab sondage day wane na ni fii ci réewum Sénégal lu toll ci fukki waxtu ak juróom daanaka askan wi dañ koy toog duñ ko def dara duñ ko liggéey le mandat kaay jox kàddu Seydina Seck muy ni ay défi ak ki priorité mi ngi xaar diaspora bu réewum Sénégal Seydina sekk ne président Macky Sall jox ma nopp ma wan la yoon ngir diaspora jëm kanam jox la nopp ci wàlluk santé ministère de l' agriculture justice culture ak tourisme économie ministère des affaires étrangères ak fépp Seydina sekk ci la mandat daal di xam ne nii moom président Macky Sall day ay proposition ngi nii bés boo ko liiree di nga xam ne lii mën na jëmale kanam diaspora tribune yéen kaay daal di may xamal ne maître Moussa Bokar Thiam day ñëwoon na seet ci waa groupe des médias moom ministre bi wàllu communication yees daal di xam le ni professionnalisme daal dëgg-dëgg moom la gis ci groupe des médias rafetlu nañu toogee yéeni kaay bi daal di koy nataaleeg Evelyne Mandiouba ak Simon Faye yu ànd ak ministre bi di tex tex maree laas yéeni kaay ne ma ñu wax ci cancer du sein mi ngi faagaagal soxna yu bëri fii ci réewum Sénégal Fatou Cissé daal di le ni dépensé naa ñetti millions te ba tey gisuma ak tan docteur Fatma Génoun bu Liska daal di ni ci àdduna wërgal yoo jël juróom ñett fukk ya mës nañ bi nga xam ne nii mooy joxe wopp joojee nan mu wér mbaa mu dem waaye daal mës nañ koo am les éco yéen kay xamal ma it Kaliphone daal dinañ koy tëj juróom benn weer kaso yoo xam ni benn ba lay tëdd te coow la jeexagul de ndax aji caara jaw mi nga xam ni génn na ci l'hôpital psychiatrique ñu koy fajee këram ay awokaam daa ñu dugal yeneeni plainte yoo xam ni mën na topp Kaliphone les éco ne ma ab policier la ab xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom benn tuumaal ne da koo sàkku policier bi daal di koy weddi ne dafa fekk kay xale bu jigéen bi sëy beneen xale bu góor libération yéene kaay ne ma yoof apex yi ab salon de coiffure lañ fa tëye boo xam ni nii borom salon ba ci boppam moo fa doon jaay drogue bii ñuy wooyee volé ci benn yére la ko làqoon section opérationnelle boo octis daal di koy génnee xale bu jigéen ba xamle na ni juróom-ñaari téeméer doon jaayee volé benn doom bu ne nga xam ne nag moo ko doon jox marchandise ba xam nañ ko ba ñangi koy wër ak lu mën a am mbokk yi nan ñaan jàmm te di yéen doog door wax yéen a kaay groupe des nomination yi nga xam ne ay ministre lañ ay DG wala ay directeur moo xam PCA yi dafa mel ni nag mbirum récompense maanaam mbaxuus daf ca am mbaxus euh, daf ca am ci euh, li nga xam ne mooy nomination yi ndax dafa am ay ministres yu nga xam ne nii dañu leen dàqoon jëlee leen ci gouvernement bi tey andiwaat nañu leen en catastrophe maanaam fii réew mi toll wala fii politique bi toll fii njiitu réew mi toll daf leen waat tax mu andiwaat leen bu loolu weesoo Macky Sall dafa mel ni kon fëgg jaay rek lu andiwaat bëgg see def lu bees maanaam jënd fëgg jaay bëgg see def lu bees xam nga ne loolu dafa doy waar ñu ñëw ci li nga xam ne rek moom mooy yenn ci euh, ña nga xam ne ay responsable politique lañu woon ñu tëjoon seen gémmiñ jële leen fi tey ji àndiwaat nañu leen maanaam fëgg jaay ga woon andiwaat nañu ko président Macky Sall yaakaar naa ne ñëpp jàpp nañ ko kenn mënul def ci lu màgget maanaam tabax ci lu bees yéen kaay bi ñëw ci euh, maître Moussa Bokar Thiam xam ngeen ne tey ji démb mi ngi woon ci euh, sunuy locaux fii ci groupe euh, des médias doon ñu seet nemmeeku moom nag rafetlu na liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko fiy def ci wàllum professionnalisme bi nga xam ne bàkke nañu ko ci liggéey yéen bi tamit euh, ñëw na ci contrôle bi nga xam ne dañ koy dafa xaw a ñàkk ci tali bi ñeneen yenn saay nag moom mooy sooke l' yu bari yi ñu euh, nemmeeku ñu jàll ci le vrai journal Siré Dia Bibi Baldé Mamadou euh, Diaité ay profil politique yu nga xam ne nii soo moytuwul ñoom ñoo yàq kër gi di pos ndax nag éloyé nga teg fi ka nga xam ne nii neexul ba neex waaye ab profilam méngoo na kër gi dañ fi àndi benn politique ay récompense politique neexal ñu tax ñu jël la teg la ci poste bi nga doxalee nu mu la neexee yàq kër gi euh, ak clientèle politique bi ngay jéem a casé. waa ji la ci bokkee tamit xanaa moom dañ koy doog a tab. kii dañ koy a le vrai na ko ci peut être ni ko tabbee dafa bokk ci récompense yi maanaam da nga xam ne dañ leen neexal ndax dañoo liggéey en tout cas le vrai journal. communique bi conseil des ministres bi. Hmm. vidéo boobu moom. ña nga toog di waroon na ko bañ a mën a. jàllale ah déet ñoom kay wayal nañ ko sax moom kay hmm. dafa toog moom ci fauteuil bi kay ñi ko wër ñëpp di ko wayal di ko tagg alors que buñ la dénkee tey postu mooy comme ko doon wax ñun ñu doon sédd waaye tey ah. ñu doon sédd waaye tey ñu sédd am na loo xamee ne day <laughs> rafetul généraux yi dafa mel ni ñoom it euh, fu mu nekk njëkkewu ko fi waaye dafa rafetul ñu ngi njëkkeewu ko fi de. ko vidéo yow ñu jël ñu jël lu mel ni poste nga xamee ni mu ngi ci ay difficultés. depuis ñaata yoo xam ne buñ la fa tegee da nga war a yaakaar naa buñ war a tiit boo tëddee waroo nelaw. Walf Quotidien dafa ñëw ci ña nga xam ne démb ñoo yoroon kàddu gi doon défendre kii di président Macky Sall tey jii kenn déggatu leen euh, xoolal euh, ki nga xam ne mooy Moustapha Cissé Lo daanaka kenn déggatu ko ani fu mu nekk euh, ki nga xam ne mooy Mor Ngom waa Sambou ak nag euh, jàngalekat bi nu mu tudd ci waaye moom du fafana euh, Youssou Youssou Touré oh, ñoom ñii di kenn déggatu leen nit ñi di laaj ani fu ñu nekk ndax nag gaa ñu déggatuñu leen benn yoon ñu euh, dem ci Vox Populi gannaaw nag après le téléphone et le logement l' état fu mu nekk nii la mu teg bët moo di oto yi ndax fu mu nekk dafa jàpp ne jëndum oto yi metti na lool te diis na ci nguurug senegal décision bu mu jël moo di di loué ay oto dugal ko ci administration bi en tout cas président Macky Sall dogal boobu la jël ñu bëri di yaakaar est-ce bi du gën a cher parce que nag dana doy waar Macky apérise à tout va dafa mel ni kon direction yi euh, euh, direction yi nga xam ne wala nomination yi bees yi nga xam ne moom la ñu def boo seetee ba ci biir waa APR rek ñoom ñoo ca nekk ñoom la ñu euh, tabb amul kenn ku nga xam ne bokkoo ci benn bokk yaakaar ñu maanaam te jotoo sa wàll jëm ci poste yu bees yi nga xam ne moom moo jotee génn gum keneen rek ku nga xam ne bokkoo ci benn bokk yaakaar moom gisaguñ ñu dugal des ñu bees ñi ñëpp c'est que ci biir benn bokk yaakaar la ñu ne séddale bukki yéenekaay bi noonu la ko jàppee Sud Quotidien dafa ñëw ci budget Sénégal yokkute bi ak impact yi nga xam ne moom la ñu leen nekk dañu gis ne budget bi dafa war a feeñ ci gafak góorgóorlu bi bu ñu waxee yokk na yokk na yokk na te yokkuwul ci gafak góorgóorlu yi wax ko dëgg ah, neex Sénégal ma ci suuf ah Air Sénégal ma xam ne mu ngay nërmeelu yéenekaay bi euh, dikk na ci nee na soo moytuwul ci lu jëm maanaam crash crash bi nag du du daanu mais crash ba nga xam ne moo di. l'inévitable kay la. l'inévitable crash maanaam fa mu jëm mënta ñàkk Air Sénégal moom bee boobu mu xam ne rek leen dana jafe bee boo rek mu toog si suuf ba kër baa ñuy lijjanti ay dossiers am yéenekaay bi foofu la dikk le bilan de l' accident survenu sur l'axe Linguère Matam yéenekaay bi dikk na si ñetti ñoo si ñàkk seen ak bakken ak nag euh, ñu euh, jàll. Euh, ci réew mi quotidien dafa mel ni kon sunu takk der yi fu mu nekk nii ñoo nekk si donkaasu gi euh, kii nga xam ne moom mooy euh, colonel Souleymane Condé nga xam ne moom la ñu def général moom réew mi quotidien nee na moonte de moom la defoon homme de l'année 2021 achat de voiture de fonction président Macky Sall nee na fu mu nekk nii jënd bi dafay dakk donc dañuy loué dañuy mujjee loué ay oto waaw dañuy mujjee loué ay oto au ñu bàyyi jënd bi ma est-ce que location bi gënul cher bi du a cher mais loolu de xanaa xanaa xanaa duufal gafaga ñenn ñi la. luwe et puis ñan la ñuy luwe. waaw ñan la ñuy ñan ñoo ñoom ñooy ñan la ñuy dem. luwe si ñoom. attends je rêve si ñan la ñuy dem di luwe ji oto. dëkk la de luwe. luwe oto mais si ñan la ñuy luwe ji. loolu itam point d' interrogation la yéen a na ci. l'observateur assemblée nationale tey jii nag la ñuy ubbi li nga xam ne mooy session unique bi année parlementaire bi euh, nan lay demee yenekaay bi en tout cas dikk na ca euh, te nag am na ay point d'interrogation yu bari yu nga xam ne nii euh, gaa ñi daal bàyyi nañ ci xel nee nañ mbirum gestion de l'État maanaam jël sa njaboot yow président bi dugal ko ci nguur gi duguleet ndax dare ko ci Senghor ba ci Abdou Diouf jaare ko ci Abdoulaye Wade tey jii si président Macky Sall ku dikk rek saa su ne Euh, da ngay jël sa njaboot def ca l' indépendant moom moo génne foofu libération mooy li nga doon wax sànq mbirum volet bi Anta Seck mi de moom mi ngi doon volet te salon la doon jaaye volet ba euh, donc moom it teg nañu ko loxo ah laas waaw moom salon la ubbi rek moom euh, fu ñi di nekk fii moom mu ngay volet laas quotidien dafa ñëw ci ñi nga xam ne dañoo am jàngoroy cancer ak nag seen ni ñu leen ko ñu leen ko annoncé ñi nga xam ne moom la ñu dalloo feebar bi yéene kaay bi dikk na ci <coughs> maam Kumba nee na ma bi ñu ko waxee feebar bi si la addunaam tukki euh, participé moom ba ñu ko waxee da nga am cancer lu mu toll si ñetti millions dugal na te ba fii France daal di tëddeen aéroport bu jas nag jàppale na ko ñetti si ay agent yu 2AS 2A 2AS si boppam ñoom ci bopp dañ leen teg loxo ndax dañoo sàcc dañoo sàcc ñeenti iPhone 14 waaw trois agents yu nekk foofu noonu dañoo sàcc iPhone 14 moo tax ñu téye leen euh, Air Sénégal bi nga doon wax sànq ak échec bi nga xam ne moom moo ci am Euh, yéenekaay bi dikk na ci euh, dikk na ci Abdoul Mbaye Mimi Touré Hadjibou Soumaré Souleymane Dende ñoom gannaaw nag euh, ba ñu génnee ba ñu nekkee ba ñu leen jëlee ci poste premier ministre seen ak doxalin yéenekaay bi dikk na ci dikk na ci également El Hadj Ahmed Aïdara la mu def ca njàng ma foofee sa géejawaay ñu jeexalee kon nag ci Macky Sall ba nga xam ne nee na oto yi léegi oto maanaam véhicule de fonction yi dañuy luwee ji dootuñu jënd donc nag ndax jàpp na ne Euh, jënd mi cher na lool te Sénégal antanu ko donc nañu dem di luwe ji xam naa ne buñ luwee kuñ ko jox buñ la wàccee après da nga koy delloo. Ah, loolu moom loolu moom loolu moom loolu moom ñu alors ñu jeexalee yaakaar naa ne takk jóg direct news nag sunu ah, ah, mbokk yi ñu ngi leen di xaarandi sa xel kom euh, yaakaar naa ne euh, guub mi tey rek dañu koy tàmbali. góob la ñu wax. góob ah. waaw comme te bay nañ ba noppi yaakaar naa ne góob gee ci des. waaw woo nañ ne taalibe nag takk jóg ndigal jëfe ngir ñu dem foofee sa xel kom Euh, man a rek euh, euh, dañ ko daan defee at mu jot bay si seen ak waar ndax bu sëñ bi wootee rek na ñëpp dem nag jàpp ci li nga xam ne moom mooy góob mi jeexalee oja oja mi nga xam ne dikk na ci ka toog ne kan da nga ne Birahim kee toog ne ci taabu ji war di reporté Baara ah, Ndiaye moo nekk ne léegi moom ne nekkatul analyste nekku chroniqueur léegi moom ci wàllu ah, football waxul football football place moom loolu lay def léegi dañu gis euh, ki nga xam ne moom mooy ministre bi moo nekk na le toog si turbine bi. ci gradin bi waaw jumbax bi kan la. kii nii. waaw. ah sëñ bi. Mame Mbaye Ndiaye. Mame Mbaye Niang. non moo joxe dara moo joxe dara à la place de non non ministre du moo ko jox moo ko jox suñu gaynde bi ci chauffeur yi nga xam ne. ñu ñoom nag saa su ne bu ñu demee moom si gil bi. kon Yankoba nekk na la ca pëjoom. ci moo ngi noonu toog ñoom yegg nañu Qatar. ñoo nekkoon Qatar ah ok ñoom ñu ngi Qatar dañoo jiitu. xaw ma nag ñibbisi demoon nañ. Mbaye Mbaye ñaan la dénkoon drapeau bi ngir ñu jox ko sunu gaynde yi ndam rek lañ leen ñoom yàgg ngeen ñu bëggal sax donc ñu ngi xaaraan ndam ci ñoom. ñoom waa tey la anniversaire bi tefes gi ah bon. waaw bugaan tey waaw.